moom dafa génn ak euh, di saafonteeg ay euh, ñu nga xamante ni ñooñu la àndal euh, ci mbeddu Ziguinchor yi mu génn nag def genre meeting lu mu wax rek moom moom mooy moom mooy dossier bi dossier politique la te dossier politique nu ñu koy régler rek mooy politique lañ koy régler moom sax egg na sës na ci phase terminale ci fu muy jëm te nee na mu ngi woo bépp sénégalais Euh, mu ñëw euh, génn ci euh, mbeddi ndakaaru yi moom Ousmane Sonko wéyal wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor nguur gi ne musuñu gis. Mhm. ci histoire maanaam yoon Sénégal que jigéen boo xamante ni dafa wanu lool ci juróom-ñetti weer ñu juge ko sans avocat musuñu ko gis mu wéyal ne ñëpp. Euh, ñu ngi wax ne affaire bi complot la loolu ñëpp ko xam Mamour Diallo taq na ci maître Gabi Sow taq na ci partie civile bi maanaam ñi féete ci Adji Sarr dañoo waxoon ne ñoom dañoo ëmb te à fin dañoo ñëw ni piège la woon ëmbuñu gisu kenn gisul ëmb ñu ne témoins yi nga xamante ni yëpp euh, ñoom ñoo ko setal moom Ousmane Sonko euh, ñoom lu ñu wut rek moom mooy ut koo xamante ne kenn xamu ko woon. kenn gis ko woon euh, ñu jënd maanaam dañoo jënd dañoo jënd dañoo jënd témoin te loolu dafay wane rek mbir mi complot la mu terminer ne euh, mu ngi wax mu ngi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa état Sénégal xam na ni lii mooy combat final dina ñëwaat Dakar euh, dafay gën a métti wax ne tamit ñi nga xamante ne mooy Mamour Diallo Ahmed Gabi Gabi Sow ak président Macky Sall ñoom ñëpp ci complo bi lañ bokk. alors ñu wax ci dialogue bi mu mel ni mardi prochain la Pape. Hmm. Euh, dialogue politique bi dem ba si euh, conseil des ministres président Macky Sall waxaat na ko nee na le huit euh, le huit trente bii di ñëw maanaam mardi la ñu koy la ñu koy amal muy wax rek depuis 2012 moom mbëg mbëg li nga xamante ne moom la bëgg moom mooy ñëpp dajaloo. Euh, ñëpp waxtaanandoo ñëpp liggéeyandoo ndax Sénégal jëm ci kanam am jàmm ndax loolu la Sénégal euh, jagleel te moom loolu la fas yéene def euh, àpp ko fi ba deux mille trente cinq mardi prochain wax naa ko moom mooy jour bi nga xamante ne moom la ñu acté pour dialogue bi ñu ci bokk nag ñu mu wax moom mooy képp koo xamante ni dafay politique di yëngatu ci wàllu koom-koom ñi nga xamante ni ci wàllu aada cosaan ñi nga xamante ni ci wàllum diine ak mag ak ndaw jigéen ak euh, góor ñoom ñëpp woo nañ leen si li nga xamante ni moo nekk dialogue maanaam waxtaan ngir Sénégal mën a tabax démocratie mën tabax li nga xamante ni moom mooy ay loi ak ay règlement am pour euh, dëkk bi am jàmm euh, fii ak ëllëg. Euh, bu nu jógee ci bile dialogue dañuy wax nag ci l'exploitation du pétrole et du gaz mu mel ni Sénégal mu ngi waajal boppam. voilà ci second semestre euh, at mi 2023 ci la ñu waajal euh, amal gaz exploité gaz ak pétrole démb tamit ci conseil des ministres. Euh, président bi wax na ne ñoom euh, seen mbébét moom mooy def lépp ba nga xamante ne xaalis koom-koom buy jógee ci gaz bi ak ci pétrole bi ñu mën ko dëxëñ ci budget état ba nga xamante ni état Sénégal euh, dina mën a demal boppam bañ a lu bëree mu ne atum 2021 ci lañ tàmbale woon waxtaan euh, ay diisoo ci wàllum pétrole ak gaz nan lañ mën a def euh, ba koy exploiter nan la ñu mën a def ba garder ko toppatoo ko léegi 2023 nag moom moom la ñuy jël lépp jox ko ki nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor euh, réew mi ngir ñu mën koo jëfandikoo ci ay ci ay liggéey mu ne am na benn loi boo xamante ne tëgg nañ ko luwaa boo xamante ne dafay yëngatu ci wàllum pétrole ak wàllum gaz ngir encadrer loolu lépp ba nga xamante ne at mi daal su pétrole bi ak gaz bi euh, génnee Sénégal di producteurs yi ak ex exportateurs yi dinañ am taxawaay boo xamante ne dinañ mën a sukkandiku mhm. ci loi yooyu ngir mën a exporter producteurs yi mën a produire ngir euh, mu mën a am jariñ Sénégal wante lu am solo ñoom ñu ngi koy wax waa nguur gi lu ci gën a am solo rek mooy fexe ba lépp sénégalais yépp tënku ci mhm. euh, juboo ci ba nga xamante ne coow du ci am. am na solo Kajoor lu ci ah, li ñuy pétrole bi moom mooy loolu rek c'est-à-dire que ñun déjà <laughs> yaakaar naa ne pays yi nekk en en difficulté te am pétrole yëpp ñun peut-être war nañu mën a am loo xam ne suñ ko suñ sukkandikoo dinañu ci dinañu ci dimbali ba ñu war koo mën a lii euh, donc ñun ñu fexe comme commencé guñu suñu lii bi et naa a besoin de ça pour se développer. Mhm. espérons que suñu développement mën na jógee foofu. nañ fexe rek ba ak nañ fexe ba euh, réew mi bañ a takk comme ça pétrole bi nga xam ne mu ngi ñëw aussi ñun ñu mën a xool nu ñuy génnee ci situation bi mais bu réew mi tàkkee yaakaar naa ne bu ñu taal exploitation pétrole boobu. alors bu réew mi tàkkee pétrole bi nekk ca wet day gën a day gën a taal day day gën a taal pétrole bi. <laughs> merci beaucoup Kadior merci Pape. Hmm? ci ci ci euh, lu ma doon wax sànq parce que Ousmane Sonko daf ne mosul gis histoire euh, Sénégal maanaam yoon. que euh, ku jigéen koo xamante ne dafa am wan looru juróom-ñetti weer que ñu jugé amul ñu jugé ko amul avocat. mais moom Ndeye Khady lay wax. waaw Ndeye Khady Ndiaye may wax rek rappeler scène bi nu mu demee que Ndeye Khady Ndiaye juge bi lu mu wax laay wax daf ni ko am nga avocat mais say avocat ñoo préféré dem say avocat suñ préféré dem ñun lu ñu mën moom mooy utal la benn avocat boo xamante ne avocat d'office état bi moom moo moo moo moo la koy jëlal. Mm. sauf que avocat boobu. ci avocat Sonko yi dem la bokk donc noonu loolu loolu moom circonstance yooyu noonu moom moo tax euh, ba nga xamante ne Ndeye Khady Ndiaye était elle euh, pour se pour se défendre ok avocats yi dem ils sont partis de leur propre gré wala euh, waaw parce que il y comme il y trois camps camp wu Adji Sarr camp Sonko camp wu ñi nga xamante ni ñoom ñooy camp wu Ndeye Khady bu ñu ñëwee wax renvoi ñuy renvoi avocat Ndeye Khary avocat Sonko yu ñoom il opté pour le renvoi ñu dàq procès bi parce que bon je parle de façon générale parewuñu bon am naa ay yeneen dugguñu ci considération boobu ñu nee nañu Ousmane Sonko jotul am na ay avocats yu ñu constitué loolu moo nekk moom moo nekk motif renvoi bi ñu ne loolu mooy juge bi ne leen procès dafay am donc bañ na renvoi bi ñoom ñoo ne bu ko def ñoom plaideetuñ dañuy génn donc si circonstances yooyu noonu la ñu génnee dem procès du am mais pour pour man euh, dañ ko def pour bëggoon un peu boycotter foog ne juge bi dafay. dellu ginnaaw procès bi. Mhm. juge bi wéyal wéyal juge bi ne leen loolu ngeen bëgg ñu ne ñoom loolu lañ bëgg duñ plaider mu ne greffier bi consigné greffier bi consigné greffier bu mu consigné. après ñoom par la suite am na keneen ku nga xamante ni ñëw na di wax juge bi ne ko noonu non c' est déjà consigné donc comme c' est déjà consigné voilà. le wax Ndeye Khady Ndiaye balaa kii bi mu ko Ndeye si biir si biir procès bi. mu ngi wax monsieur le juge mu ngi interpellé juge bi ne ko ñii dañu may poser ay questions avocat wu Adji Sarr dañu may poser ay questions mais man amu avocat bu ma poser question juge bi ne ko wax du au wax naa lu leer naa ñi nee naa la say avocat ñoo préféré dem nay leer juge bi loolu la ko wax voilà utal nañ la avocat il a pas voulu plaider il est parti avec les autres il noonu la demee ok merci beaucoup euh, am élément bi tribunal am na solo de boobu <laughs> nekk tribunal ñàkk nekk tribunal ñëpp xam li nga xamante ni moo xewoon ah, peut-être ki nga xamante ne moo nekk tribunal moom moo mën a wax loo xamante ne voilà c'est un témoin oculaire day fekkee mais bon euh, bon c'est c'est comme ça merci beaucoup <laughs> alors on enchaîne rapidement ak l'invité de la matinale léegi-léegi bu baax bi noppee ñu dikkat ci plateau bi daal di dalal suñu ganu tey